al madina travel salum jidda sen info international ak tarixa tijaniya in america si njiital suñu imam Mouhamed Muntaha Sakho ñoo leen may émission bu mag bi di seen bu weeru koor dee dugg si jullit bi li mu war a laaj te sama borom tabaraka wa taala li yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yor tontu li mooy kayfa astaqbilu ramadan naka lay gàttandoo weeru koor naka lay welcome weeru koor xam nga weer woo xam ne rëy na ba bés yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa yëg ci minbaram daldi ne amin yëg ca escalier ba ca topp ne amin yëg ca ñetteelu escalier minbar ba ne amin asaxaabatul kiram ne ko yaa rasulallahi yow mi yàlla yebal alayhi salaatu wassalaam allaama am mënt moo lu xew ba nga naan amin amin amin yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne leen jaani jibrilu jibril la fi dikk fa qaala li raghima anfu abdin adraka ramadana fa lam yughfar la yàlla na torox jaam bi dund weeru koor ba mu jeex te baaluñ ko waaw ku jot weeru koor te baaluñ ko yàlla na torox buñ ko baalul kañ lañ koy baal weer woo xam ne jibril alayhi salaam yonentu alayhi salaam wa afdalu salaa mi ngi imaginer mi ngi tumuranke ci moom naka la ko jaam bi di jotee te yàlla du ko fóot ba mu set wecc ci bàkkaar weer wu toll noonu reyaayam ma tax ku cay jublu war nga fexe ba préparé ko ba benn bés du la ca raw yiwu benn bés yiwu benn guddi yiwu benn bëccëg yiwu benn waxtu yiwu benn minute mbaa seconde la ca raw waaw boo gisee yonentu sallallahu alayhi wa nañ waaye bokk na ci njëriñ yi préparation la ndax boo tàggatoo sa bopp soo tàggatee sa bopp ci koor ci biir Shaaban boo mënta woor la ca ëppit nga woor la nga ca mën dana tax eh, balaa koor gi di ñëw nga tàmm ko ndax bëgguñu bopp buy metti ci premier bésu koor tax nga rate benn yiw ci benn seconde bëgguñu tayal ndax bés bi ngay njëkk a woor miinaguloo ko tax benn yiw di la ci faat looloo tax eh, di woor loo mën ci Shaabaan baax ndax compétition kenn du xaar ba bés ba nga soog a sport nga soog a nga soog takk sa ndigg examen yi kenn du xaar ba bés ba nga soog a révisé waaw moo tax lu nit mën ci weer wi mu góorgóorlu ci ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam mosul woor ci wenn weer wu dul weeru koor lu toll ni li mu daa woor ci Shaaban su ko def waaw Seydina Seydina Usaama laaj na ko ba sax lu tax mu ne ko ñaari weer yu màgg a ko seq ba tax ñu bari di ko sàggane ñaar ñu màgg suñ la seqee mën nañoo suul sa màggaay mën naa am sax gënuñ la màgg waaye seen gos lañ gën a xam te fu ñuy sàgganee jaamu yàlla rek moo xam ci jamono la moo xam ci bërëb la jaamu yàlla dafay am yool dafay am solo yonentu nee na buñ yeggee ci jamonoy xërj mooy jamonoy fitna yi ñu toll nee jaamu fa yàlla dafay mel ni gàddaay jëm ci man te jamonoy fitna lañ toll waaw rey tooñ waa lu ne dootoo xamati sax kii rey luy tax muy rey moom sax xamu ko kii ñuy reyit xamul lu tax xoolal lu ëpp fanweeri junne ci ay innocent yu ñu faat ci weer yi ñu génn ca Gaza ak biir Filastin bandi yooyu di ku wooye seen bopp Israël ak seeni complice Amérique ak Grande-Bretagne ak Europe xam ne ñooy band yi gën a mag ci kaw suuf criminel yi gën a mag ca biir fanweeri junne yooyu lu jege fukki junne yi ak juróom ci xale nga ci ca nekk ci jigéen kenn xamul nañu toll dem nañ sax ba far nag di leen xiifal ba léegi am na avion yu jaar ca kaw ngir di leen sànni lekk loolu yépp pour def pression ci ñoom pour nangu seen dëkk wala la des ci seen dëkk àdduna yépp di seetaan waaw maa ngi wax démb ne su fekkee ne benn soldat koo xam ne pilote la dégg nga bokk ci armée américaine moo mën a dem ngis ngir ndëng gi mu gis dëkkam di ko def ci kaw Palestine ànd ci ak bandi yu mel ni Netanyahu ak ñi ca des tax mu dem ca bunt ambassade bu Israël ca Washington taal boppam ngir protester nga am ñaari milliards yi taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënuñoo yëngal lu dal nga am àdduna buy woote droit de l'homme buy woote droits humains droit nangam bi kàcc walay wan ne dundatuñu waaw wala ñu yàlla may dund ci barke weeru koor yu ñëwee ñaan sama borom alak Israël ak bépp doole ju koy dimbale dem Amérique la ndem Grande-Bretagne la ndem Europe la waaye yàlla dimbale Palestine ak képp koo xam ne ma nga xeex pour Palestine libre yal yàlla delloo leen suuf si yépp la ko dalee ca dexu Jordan Jordanie muy Ordon ba ca géej ga yàlla def yaa rabbi ci barke yonent bi sallallahu alayhi xam nga eh, asalafu saalix lu mat juróom benn weer njëkk weeru koor di aksi dañ daan ñaan yàlla mu dimbale leen ñu dund ba weeru koor dikk maanaam ñoom lu néew la nga daan dégg ci ñoom ñuy ñaan gudd fan comme niñ koy ñaan i ñun <laughs> waaw ndeysaan gis rek mu ne man kay yàlla may gudd fan ak wér gu yaram rek jeex na fàtte na ne àllaaxira amut waaw rabbana atina fi dunia wa ma lahu min xalaq waaw yàlla nee na koo xam ne sa ñaan yëpp àdduna la nee mel ni delloo nga sa cër waa laaxira kon waa laaxira looy wax gaañi looy wax gaañi waaye atina fi dunia xasana wa fi xasana boobu moo baax asalafu saalix nag bu ñu ñaanee dund rek dañu bëgg a fekkee weeru koor juróom benn weer bu rajab ñëwee ñu naan allahuma barik lana fi rajab wa shaabaana wa balligh na ramadaan la yàlla nga ñu may barke yàlla nga barkeelal ñu rajab barkeelal ñu shaabaan te yóbbu ñu ñu dund ba yóbbu ñu ñu fekkee weeru koor koor ñëwee nag lu ñu mën ci góorgóorlu ñu def ko bu jeexee juróom benn weer ya ca topp ñuy ñaan pour yàlla nangul leen ko moo tax bokk na ci li ñoo gàttandoo weeru koor nga ñaan yàlla yóbbu la ca ndax pexe yóbbuwu ca nit oo pexe yóbbuwu ca nit te jullit bi léppam ñaan la adduaa huwa al ibaada la yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ñaan mooy jaamu yàlla ku nekk ci ñun yaa ngi yaa ngi mébét rek am na benn kilifa gu baax nekkoon fii ci Euh, ministère de la femme yiw baax mën liggéeyam fonk ko euh, dem na sax ba dañ ko jox repos médical wante am na réunion buñ doon def ak formation am solo ga tax mu ne fokk mu fekkee ko ba mu ca ñëwee ca la malaise ca la am euh, dégg naa sax dafa mel ni genre waa naka lañ koy tuddeeti euh, lu crise yooyu nga xam ne dafay tax nit ki mën na paralysé cerveau euh, dégg nga commencé am problème mu brain répondre route ca mi ngi ci taabul bi kat foofu la amee crise yóbbu ko hôpital ñi ko yóbboon hôpital kenn ci ñoom di sama wëllëre ba mu jaaree sama kër di ma seet ma ne ko xaaral ñu ndogo di mu ndogoo ba noppi te fekk boobu hôpital la jógee seeti woon ko génn ne mi ngi dem këram ci yoon wi mu woo ma ni ma maam Ngor Juuf de noppalu na xam nga ñooñu dañu xam ne liggéey jaamu yàlla la at ci gouvernement bi la bokk maanaam ci cadre yi yi doon liggéey ci ministère de la femme pour wax ah, la ne la ñépp bonuñu waaw kàddu yi ñu wax ci moom tax na bañ ma ko waxee rek waaw ma bàyyi la ma doon def yëpp àdduna yëpp bàyyi liñ doon def yëpp waaw yamu daan def ci dimbali jànkat alxuraan ak ci nàngam ak ci nàngam yëpp feeñ cest à diir pour wax la ne la yaa ngi dund rek waaye xamuloo li xew seetal ku nekk ci table réunion am crise ñu yóbbu la hôpital balaa vingt-quatre nga faatu balaa 24 heures ba faatu moo tax di ñaan ñaan bu la ca yàlla yóbboo nag nga def la yonentu sallallahu alayhi wa sallam daan def waaw maanaam nga ñaan yàlla mu agseeg jàmm barke ba mu indiwaale ngëm gëmu indiwaale mucc gëmu indiwaale lislaam gëmu indiwaale tawxiid gëmu indiwaale yàlla joxla la ci ba mu doy waaw allahuma ahillahu alayna bilyumni wal iman wassalaamati rabbi wa rabbuka allah waaw la yonentu daan wax sallallahu alayhi wa sallam ñaan mu agsi nga ñaanit yàlla dimbali la la indiwaale yëpp nga am ci waaw te nga sant bi ci topp mooy nga sant nga sant fekk kim la fi fekk am yi dafay wax ne bëgg nañu saa yoo gisee xéewal gu bees mbaa lu safaanu lu lu la yàlla musal saa yu la yàlla bettee xéwal mbaa mu betteel ak mucc ci lu la daloon mbaa loo ragaloon ne nga sujootal yàlla pour sant ko moom la tuddee sujoodu shukr sujoodu waaw te xéewal nag gënte lay fekkee weeru koor bari na ku daa julleeg yow daaw léegi mi ngi ci biir suuf te pourtant weeru kooru daaw yéen dana ànd jàkka ji lépp lu mu am ci lu muy mébét mooy ajaan jóoba mi ma daa ànd ak jàkka ji mu sarax ma benn ñaan bu ma fekk fi nuy faatu bi ma daa ànd ak jàkk ja sarax ma benn astafirullah bu ma fekk fi faatimatu bi ma daan ànd ak jàkk ja mu sarax ma benn salaatul fatix bu yaasin bu ma fekk fi yaay yaasin bi ma daan ànd ak jàkk ja sarax ma benn basmala fukki junne mbaa laa ilaha illallah juróom-ñaar fukki junne yoon soo ko laajoon lan nga mébét tey mu ne la ma delluwaat ba mu am benn weer benn benn waxtu koor benn waxtu koor benn waxtu koor ku nekk ci ñun nag ne imaginer ni moom mooy kookee ndax mën naa mëno yàlla mënoon na laa def kookee nag fan yu néew yi yàlla lay nax ñu fekkee yàlla yàlla defal ñu fekkee te rafetal fekkee bi ci topp mooy bu weeru koor ñëwee nga bañ a def ni séeréer yi waaw nga bañ a def ni séeréer yi séeréer bu weeru koor ñëwee du bëgg bu kooree dañ koy bu sax dañuy xam ne dafa woor du weeru ko du weeru naxar mukk du weeru tiis waaye weeru mbégte la moo tax dañu bëgg bu agsi nga feeñal mbégte ni ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam daan defee waaw ah, weeru koor de agsi na weeru koor weeru barke yàlla farataal na ci yenn wooram ubbi ci buntu aljanna yi tëj bunti jaxiim yi xadis yaa ngi ci Ahmad waaw waaw tax saxaaba yi dañ daan bég lool ba mu ëpp ci bu weeru koor agsee ndax weer woo xam ne bu agsee eh, mawsimul xayraat yépp agsi mu mel ni foiru yiw la loo def rek mu yóbbu la aljanna asamaan ubbeeku yërmande yi dootuñu arrêté di wacc lan lañu war a gën a bégee ci loolu seetal boo amoon soppe boo xam ne gëj nga ko gis nga xëy rek mu ne jamet sa buntu kër fekk yaa ko nam nan nga xoolal mbégte mi ngay am ak teraanga ji ngay préparé pour kooku waa ban soppe moo la mën a indil li la weeru ko di indil moo tax benn gan gënal ko mérité ñu bég ci moom te teral ko weeru ko nag jëf ju baax lañ koy teralee moo tax bokk na ci li ñuy tertoo koor fas yéene ne waxtu wu ne ci koor gi minute bu ne ci koor gi seconde bu ne ci koor gi danaa ci profité ba lu ma mën ci mbaax ma def ko te boo fasee yéene te yéene ba di dëgg ci yow rekk ku dëggook yàlla yàlla dëggoog yow te dimbale la waaw ku dëggoog yow yàlla yàlla dëggoog kooke dimbale ko yombalal ko mu mën a topp mën a def yow yàlla nee na fa law a la kaana xayran lahum waaw suñu dëggu woon ak yàlla mu gën pour ñoom ah juróomeelu yëf bi ñoo tertoo koor mooy fexe ba bala koor di ñëw lépp lu aju ci koor ci wàllu atte nga xam ko waaw nu xam lu lépp loo xam ne jëm na ci xam-xamu koor jëm na ci fiqhu ahkaami ramadan ndax doomu aadama mënta jaamu yàlla te xamul ni yàlla bëggee waaw dama ko xamutoon du doon lay mukk ndax nul n'est censé ignorer la loi ku doon dawal tey ba romb fa police yi arrêté jo la bindal ticket nga dem ne juge ba xaw ma woon ne fa kenn waru ko romb est-ce que dina tax mu ne la kon garaawul déedéet parce que kenn warta réeree yoon wate lépp lu aju ci koor nañ fexe xam lu ko suñ mënta xamal mu mënta xamlu na mu waree mënuñoo jàngal suñu bopp mënuñoo liir te daanaka jàngal sa bopp wóorut nga dem ci ku jàng fasalu ahla dikr in kuntum la taalamun waaw ndax nit ñi kat ñett lañu ki xam ak ki xamlu ak ka des kenn bëggul a bokk ca ka ca ña ca des ña ca des mooy lan mooy ñi xel ko annaas halaatatu nit ñi ñett lañ aalimun ki xam wa mutaallimun ak kii xamlu kii jàng pour xam wa haalikun ak ku alku maanaam ku nekkul boroom xam-xam nekkuloo ci processu xam eh, nee ñu ku alku nga yàlla nañ ci yàlla moo le musal waaw ndax koor la ca nekk jar na eh, jàng ba dee pour mën a profiter mën a jëriñoo njëriñ ya ndax dafa am jagle gu geneen jaamu amut moom koor jagle gu njëkk gi mooy sama borom taala def ko daaf ci boppam dafa ne koor maa ko moom pourtant moom moom jaamu yépp moom jaam ñépp wante koor daf ko jagleel boppam laafal ko boppam asawmu lii wa ana ajzi bi waaw seetal loolu yàlla moom néeg yépp waaye dafa laafal kaaba gi nem sama néega koor nag yàlla moom jaamu yépp waaye dafa daafal boppam ne sama yëfa ndax yàlla ci koor la dëkk moo tax koor yëfama waaw ki ko def nag dafa mel ni yaa ngi ci terrain am bi mu bëgg nga fekk ko bi mu bëgg nga fekk ko ndax yàlla du lekk du naan subhanahu wa bokk na ci ngëneeli koor xadis ji yonentu sallallahu alayhi di wax ne amul benn jaam yu woor benn bés ci yoonu yàlla lu dul yàlla dana ko dana soril kanamam ngir koor googee mu koor mu woor dana soril kanamam safara lu tolloog juróom ñaar fukki nawet soo doon tukki nga war la gën a gaaw pendant soixante-dix ans distance boobee ngay dagg yàlla dana soril sa kanam ak safara lu toll noonu ngir benn bés boo waral yàlla subhaanahu wa te bu doon koor ga sax kooru naafila la looloy xew loo xalaat kon ci koor goo xam ne kooru farata la ci weeru koor yonentu sallallahu alayhi wax na ne woor protection la buy protéger jaam ci safara bés seydina abu umaama daf ko ne yow yonentu sallallahu alayhi wa tegtal ma jëf joo xam ne mën naa cee duggee aljanna tegtal ma jëf joo xam ne danaa ca duggee aljanna mu ne ko alayka bis saw taxool koor maa ngi lay dénk koor dara melul ni moom la waaw dara melul ni moom waaw eh, buñ ko doon wax duñ fi jóg waaye ñaar mën na ko expliquer bu jëkk bi mooy jëf la joo xam ne mbóot la mbóot la moo xam ne benn mbindeef amu ca agsi sama boroom rekk moo ca am agsi moo tax moo tax ngistal du ca dugg waaw man boo dee julli mën nañ laa gis ngay këpp ngay sëgg ka siggi ñu xam ne dangay julli boo dee jàng alxuraan mën nañ laa gis ngay jàng alxuraan boo dee xaj fokk ñu gis la booy joxe asaka fokk nga jox ko kenn jëf jooyu jëf rek mel ni jaam ñi am nañ ci accès pour xam ne yaa ngi koy def koor nag mooy jaw jàmm joo xam ne jàmm goo xam ne sama borom rek rek moo ci am mën nga woor téeméeri at nit ñi duñ ko xam nit ñi duñ ko xam ma moo tax jëfu baatin la ndax séeréer bi woor wooru àla kenn du xam ne ma ngay def la muy def yàlla rek ko xam waaw moo tax ki yendu ci këram frigo baa ngi fi xeetu ñam yëpp a ngi fi xeetu naanu yëpp a ngi fi bu dee ku mel ni man nga xam ne kafe rek la bëgg kawe gaa ngi koy xeeñ te sañu ci jël moo lay moo lay wan ni eh, koor yàlla nga mën a gedd yooyu yépp ngir ne sama boroom nga bëgg mu bépp ñaareel bi expliqué ak di wane ngëneelu koor mooy moyen la boo xam ne benn moyen melul ni moom pour noot noonu yàlla bi noonu yàlla bi te mooy sa noonu yow nga damay wax toujours ne alquran du téere bi histoire xisa bu mu la nettali rek tay la xisa bu mu la nettali rek tay la bu la waxee ne aadam Iblis mooy noonam def na ko lii def na ko lii def na ko lii ci biir mun wax na la ne ah yamul ci aadam sa noon la yowit waaw bu ko defee dootoo dootoo jàngati xisa aadama ak iblis waaye xisa iblis ak sa bopp ngay jàng ndax noonee la ba yowmal qiyaamati du dakk te moyen bi muy jaar pour mën ñu atteindre mooy désir ash-shahwa te dafa bokk ci liy dëgëral désir lekk ak naan fekk suuf si bànneex mi ngeen naat te lekk daf koy naatal naan daf koy naatal seytaane du jóg ci tool boobu waaw jóg mukk boo bàyyee bànneex yi nag di lekk di naan yoon yi seytaane di jaar pour am accès ci yow dafay xat dafay xat moo tax koor dafay xatal jaaruwaay yi waaw dafay xatal jaaruwaay gis nga ñaar yi rekk doy na ci xam nga ne lu koor ndax dafay tax ki tax nga dikk fi bég te mooy yàlla ndax yaa ngi ak moom te loolu rekk nga soxla ñaareel bi ki nga xam ne yitteem yépp mooy soril la borom bi yitteem yépp mooy yóbbaale la sawara muy noon bi koor dafay tax nga tëkkoo ay tax nga te ko yàlla nañ ko téyaara bu ko defee nag loolu pour mu am foog nga xam ne koor dafa am ak koor waaw waaw koor dafa am ak koor ñetti martaba koor ñu am bu njëkk bi mooy sawmul umum mooy le jeûne des communs waaw kooru séeréer ñaareel ba mooy sawmul xusuus muy kooru élite waaye am na bu ko faree kaw nag mooy kooru ndaanaani eh, ndaanaani waaw bu dee kooru ñëpp mooy kooru séeréer mooy bi ñëpp di def rek doo lekk doo naan doo jote ak sa soxna doo jote ak sa jëkkër boobu ñëpp mën nañu ko boo dee kooru tànni fi muy élite yi nag mooy ni cër yooyu di wooree di biir ak eh, pëy ni ñoo wooree la yeneen cër yi ci yaram bi di wooree bët yi dootuñu xoolati lu ñu war warul xool làmmiñ bi du waxati lu mu warul wax waxuma la lu mu warul wax sax waaye lu jëriñut naka noonu cër yi ci des yëpp ci ngay déggee xadiisu yonentu sallallahu alayhi wa bi ci Buxaari mu ne ku bàyyiwul waxi mbóosóor ak jëfe mbóosóor mooy caaxaan ne yàlla amul soxla ci nga bàyyi sa ñam yàlla amul soxla ci nga bàyyi sa naan waaw yàlla dootul faaleti sa jëf seetal loolu maanaam li nga xam ne daganal nañ la ko ci lu dul jamono koor soo ko mënee bàyyi mooy lekk ak naan ak sëy te mënuloo bàyyi li nga xam ne même su jamono koor dañ la ko tere am na looy waral kon ban façon ngu koor nga woor kon waaw ki mën a bàyyi li li ko daganal mooy li gën a jafe nit bàyyi ko ndax bés bu ne nga lekk bés bu ne nga naan bu dee ku nekk ci néegu sëy nga bés bu ne nga sëy soo mënee bàyyi yooyu nga xam ne ci lu dul jamono koor at mi yëpp dañ la ko daganalal wante ci jamono koor mënoo bàyyi li nga xam ni sa dund bi yëpp dañ la ko tere te mooy wax mbaa jëf ju dellu ci mbóosóor ne kooku lan la yàlla di doye sa bàyyi lekk lan la yàlla di doye sa bàyyi naan parce que bu lay woorloo dafa bëgg nga am dafa bëgg nga am noo mel soo ko mënta mel looy woor looy woor waaw maanaa bàyyi gi ñuy bàyyi lu xalaal ci bëccëgu weeru koor daf ñu war a tàggat pour ñu bàyyi lu xaraam ci weeru koor ak ci lu weeru koor daf lay fàttali ne ndeke li nga foog ne mënuloo ko bàyyi ci lu xaraam yëpp mën nga ko bàyyi ndax ki mën bàyyi lu dagan lu xaraam taxul ñuy wax lu xaraam taxul ñuy wax wante su fekkee nag xol bi eh, bànneex daf ko daf ko waree côté bu ne bàyyi lu xaraam daf koy jafe moo benn boroom xam-xam mu ni tarku daaniq lu toll ni ci tuuti min xaraamin ci lu xaraam nee na bàyyi ko xayrun min thamanina xajjatan baada lislaam waaw lii dafa xaraam lu mu tuuti tuuti xeebuloo ne bàkkaar bu ndaw la waaye bàyyi nga ko te yàlla tax nee mu gënal yàlla juróom ñetti fukki xaj yoo ko xajal yu bokkul ak aju farata laa ilaha yàlla ñu yàlla dimbale ba ñu mën a jox suñ bopp yàlla ci zaahir ak ci baatin bokk na ci teggi ni kon koor googule bokk na ci teggi ni koor ñu bañ ko def kooru sénégalais mooy bëccëg gi da ngay shopping shopping shopping lu ne nga jënd di préparer dog bu dog ñëwee nga lekk tàndarma lekk mburu lekk kafe lekk ceeb lekk lu ne nga lekk ko waaye defee li nga wooroon ci bëccëg gi yëpp nga ne danga koy fayee ko ci guddi gi kon kay jaruloon ngay woor jaruloon ngay woor ndax niñ la soxlaa ci bëccëg gi noonu lañ la soxlaa ci guddi gi waaw te dangay lekk tuuti ndax nga mën taxaw nag diyaaleeg borom bi ndax qiyaam la ak siyaam waaw te it's a month of fasting it is not a month of feasting du benn du benn mukk te yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne doomu aadama mu feesalul ndab lu yées ndabu biir ndab yi ñuy feesal yépp bi ci yées mooy biir waaw boo reggee guddi gi dootoo jëriñoo guddi gi nelaw rek ngay bëgg a su dee njël tamit dangay lekk ba rekk daanaka ba tisbaar di jot dootoo mën a am njëriñu defal yàlla dara ba defal sa bopp dara ci li yàlla digal parce que koor dañu bëgg nga mos cafkaay xiif ni nga daan mose cafkaay ceebi jën cafkaay suubu kànja cafkaay dibi dibi dem ba ci di lekk naa dibi bu neex dibi waaye noonu lañ bëggee nga mos jaf kay xiif parce que xiif rekk mu mën a yar bakkan waaw ne ñu bi ko yàlla bëgg fu mu ko dugal ci mbugal moom bakkan bu ko bàyyee rek bu ko laajee mën a kan mu ne ko yow a yow yow a kan mu ne ko mën a man waaye ba mu ko mosalee xiif taxawul ca la xàmmee ku yàlla xàmmee moom bakkan ni mu xeeboo looloy kooru élite kooru tànneef yi waaye kooru tànneefu tànneef yi nag mooy sawmul qalb anil himami dania waaw boobaa dootul nekkati cër yi waaye biir lay doon maanaam xol bi ci boppam bépp yitte bu suufe bépp xalaat buy soriloo yàlla buy soril jaam bi yàlla lépp lu dul yàlla ci gàttal daf cay dox yàlla nañu yàlla may koor googu yaram waaw xol bi dina woor ci alhimam addaniya lépp loo xam ne aspiration la bu dellu ci matt dellu ci lu suufe bépp xalaat boo xam ne dafa soril yàlla dafa soril jàmbi yàlla lépp loo xam ne du yàlla rek te yow ci lu dul yàlla nga bokk moo tax dangay woor ci sa bopp sax subhaan euh, dangay woor ci sa bopp waaw ci sa bopp dogee yàlla subhaanahu wa yàlla ñu ko yàlla ma yar defee yooyu yépp ñu bàyyi ci xel ci gàttadu weer xam ne weeru yiw la weeru barke la yàlla def ci ci xeeti yiw yoo xam ne doo ko gis feneen doy na ci rek ci la yàlla wàcce alxuraan muy njub ñeel jaam ñi di saafara pour jullit shahru ramadan alladi unzila fihi alquran yàlla def ci guddi goo xam ne waxul ne toll na ci yiw jaamu yàllaay junney at waaye def ne ëpp na ko ëpp nag mën na ko ëppee ay milliards yi milliards yi milliards yàlla jaamu yàllaay eh, junney weer laa bëgg wax junney weer nag ëpp na juróom-ñetti fukki at defee nag fii la ñuy tàmbalee ci chaabaan bi di jàng alquran ndax saxaaba yi dañ daan bëri lu ñuy jàng alquran ci chaabaan parce que weeru alquran a ngi ñëw waaw moo tax chaabaan ñu ko daan woowee chahrul qurra weeru jàngkate alquran yi bëri na ci mag ñi ñoo xam ne dañ daan tëj seen business yi ci bu chaabaan dikkee dañ daan tëj seen business yi bu Chaabaan dikkee ndeysaan pour préparer ak ya yàlla di wàccee ci Chaabaan ndax yonentu wax na ne ah, cité nañu genn wàll ga ci xadis usamatu li taxoon moo daan wóor ci mooy nit ñi dañ koy sàggane waaye ñaareel bi mu ne parce que ci la ci la ñoo def rapportu jëf yi yët yàlla waaw bés bu ne danañ ko defal rapport jëfi guddi balaa bëccëg jëfi bëccëg balaa guddi semaine bu ne danañ ko defal rapport alxames ak altine te moo gën a xam ña koy defal rapport ndax nee na wa maa kunnaa gaa'ibiin mosuma fàtt waaw wa maa kunnaa gaa'ibiin waaw we have never been absent subhanahu wa rapport annuel bi nag ci weer wi lañ koy def muy Shaabaan yonentu ne ma bëgg bu may bu ñoo yëkkati sama jëf mu fekk maa ngi woor nga romb ci guddi goo xam ne yàlla xool na jaam yépp baal leen ba mu des ko am ci xolam shirk mbaa mbañeel mbaa mbañeel nga xam ne kon képp koo xam ne mucc nga ci shirk rekk yàlla baal na la yàlla ñu boole baal képp koo xam ne li ne ci xolu maki bi newul ci sa xol rekk yàlla baal na la yàlla ñu boole baal te dindil ko li nekk ci xolam bi moom it waaw su ko yéenee jàmm su ko yéeneewul jàmm nag mu ngi noonu waaw bokk na ci ngëneelu weer bi seytaane yépp dañ leen di jëng bunti safara yépp ubbeeku bunti aljanna yépp ubbeeku waaw maanaa yii tax seytaane def loo la dara dafay jafe yii tax seytaane mën la def loo dara waaw mel ne gis naa sax Yaasin di woote dafa mel ni eh, connexion bi la walla yéen a ngi dégg de ok yii tax seetaane mën la def loo yii mu bëgg daf dul nekk ci koor ba tax mu def loolu dara dafay jafe yi tax aljanna yi yóbbu nit aljanna dafay yomb dafa ci bari yi tax doo dem safara it daf ci bari ba tax bu dikkee rentu ne dañuy bunt ubbi bunti aljanna yi tëj bunti safara jéng seytaane yi waaw weer wi ci la waxaatu badrin amoon xam naa danañ ci dikk ci la xare Badar am ci la fatxe Makka am danañ ci dikk waaw nga xam ne ñaari bés la yu extraordinaire ci taarixul islam yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku woor weeru koor te gëm ak yaakaar yoolu yàlla tax ne lépp loo mos a def ci bàkkaar ñu baal la ko yàlla ñu suñu bàkkaar defee ñu préparé ko préparé ko ya ca am ci weeru ko ya ca am ci wàllu taxawaayu guddi ñu ñu commencé ci tàggat suñu bopp ndax tahajjud bi ngay def nii daf lay tàggat ci taraweex taraweex daf lay tàggat ci tahajjud waaw waaw wax na ne ku ca taxaw guddi te yàlla rekk tax te ngëm tax ak yaakaar yàlla yaakaar euh, fayu yàlla ne yàlla baal la loo mos def ci bàkkaar su fekkee nag wax nañ ne nañ ko préparé ba benn ceex sa deux duñu du ci raw préparation bi war na tàmbali waaw walla defee mën nga def sa nga télécharger sa application alquran nga gis ne bés bu nekk nangam laay jàng ci alquran ci ay ayat wala ci ay page wala ci ay ahzab temps bi nga daan def sa lunch time wala sa break pour lekk nga fexe ba def ko tax booy jàngee moo xam dangay dem ci jàkka ja wala da am koo nekkal en ligne wala koy waxtaanal ku lay dimbale ci jàng alxuraan ak ci gën ko dégg ak gën ko xam ndax jullit bi xaalam ci alxuraan ci weeru ko bokkul ak xaalam ak alxuraan ci beneen weer moo tax nga gis kii te ko wàccee ay yoon te mën naa am ci weeru koor bu dul weeru koor wàccee ko daf koy të doonte jaaduwut waaw doonte jaaduwut ko daan wàccee tout le waaye bu weeru koor ñëwee nga gis ku mel ni imam Shaafi bëccëg kaamil guddi kaamil seetal loolu bëccëg waaw bés bu nekk kaamil hmm? loolu loolu seetal loolu te loolu nga defee li nga ci mokkaloon nga yokk ko li nga ci xamoon nga yokk ko waaw li ni nga ko xereñee woon nga gën ko ndax nu ko gën a xereñee rek gën a jege source bi moo tax yonent bi ne ki xereñee alquran mu ngi ànd ak asafara al alkiram albarara waaw ñoom seen lépp source bi la lépp ruux lépp ruux bi lépp ruux la te yow ruux nga dafa am lu la rax rek luy tax na nga dellu ca source ba danga caa war a gën a góorlu te amul lu ci topp alxuraan rawatina ci jamono ji mu wàccee muy weeru góor góorgóorlu ci alxuraan ci jàng ci dégg waaye góorgóorlu ci alxuraan it ci farlu ba jikko woo jikko alxuraan tegginoo tegginoo alxuraan waaw roy ki nga xam ne moom moo eh, temmu mooy moom mooy alxuraan ju daan dox mu yonent yàlla muhammad fu mu toll mi ngay jàng alquran mu ngay tudd yàlla saxaaba yee ca topp fu ñu toll ñu ngay jàng alquran ñu nga tudd yàlla waaye ña ngaa jëfandikoo alxuraan ña nga caaroo yonent bi sallallahu alayhi préparé it weeru tabe la moo tax ngay gis jullit bi tabam ci alxuraan ci weeru koor di yokk ndax koor ga dana xam ñi ñi amul li ñoo daj waaye alxuraan ca dana tax mu amee jikko yàlla ndax alxuraan wax yàlla la ki gën a jege yàlla ci jikko ci mbindeef yi mooy yonentu sallallahu alayhi wa tabeem ci alxuraan tabeem ci weeru koor eh, kenn mënu ko imaginer ndax moom tabeem ci jamono ju normal sax kenn mënu koo imaginer moo gënoon a tabe canlu weer ngelaw loolu nga xam ne lu mu romb yóbbaale noonu la nu yonentu ko gënoon a gaaw ni ñuy ni ñuy joxe ak ni ñuy yóbbaale soxla yëpp lay yóbbu sallallahu alayhi wa waaw waaw Seydina Abdoulaye Abbas nag nee na tabeem gi li muy rëy rëy ci eh, temps normal bu yeggee ci weeru koor ba Jibril di nafar moom alxuraan eh, nee na rawati nee na rawati moo tax luñ mën ci tabe rawatina dimbale suñu mbokk yi sonn dimbale waa Gaza waa Palestine eh, dégg dimbale néegu yàlla yi fexe ba di jàpp ci iftaar yi ndax koo ku wóor ba ngoon nga jox ko lu mu dogee la mu am ca koor ga yépp yàlla dana la jox lu ni te du ko wàññi dara waaw te di ci góorgóorlu fexe it loo mën ci itikaaf nga def ko waaw bu dee fukki fan la bu dee ay fan la ndax yoon daf ko daa def ci process bi la bokk loo mën ci góorgóorloo nga def ko xam naa buñ doon waxtaanee yaaju ci koor duñ fi jóg waaye ñu fexe daal ba ñu fexe daal ba euh, góorgóorlu préparé ko raxas xol bi surtout raxas xol bi raxas xol bi ndax Seydina Abdullah ibn Mas'ud nee na ñoom suñu ñëmee weeru koor di dugg si te fekk dara ci mbañalan ci seen xol ñu ëmbal ko seen mbokk kon nag yàlla na yàlla def li des ci caabaan bi di janaakoonu xol yi di sutura suturaalaakoonu ayib yi di faraakoonu bakkaar yi di wuññiwaakoonu njàqare yi na yàlla def lu mais yàlla yóbbu ñu ci weer wi te bum ñu xañ bum xañ suñuy soppe bum xañ suñuy njaboot kooram bum ñu xañ taxawam lañ ci yàlla yóbbu wér yóbbu ñu ci jàmm kenn du manqué lépp lu koor di jur ci taqwa ci mbaaxu àdduna ak àllaaxira yàlla nañu ko yàlla boole yaa rabbi wala ñu defaral suñu zaahir wala ñu defaral suñu baatin li ñu tàmbalee woon ñu tëjee ko weer euh, réew mi yàlla génnee ko ci loxo dictateur bi nga xam ne moo ci ngoy tafasul yéene bako yàlla na ko yàlla foqatil boppam yaa rabbi jox ko Sénégal teg ko ci loxo yi mu xam ne ñoo gën pour Sénégal yal na yàlla def loolu yaa rabbi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa barakati mawlaaya